di jël suñu nuyoo boobu rek di ko teg ci loxol suñu kilifa gi suñu sëriñ bi suñu jëriñ ji a Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ko ñaan rek mu yeggale ñu nuyoo boobu ci bokki taalibe yi yépp waaye tamit nuy ñaan képp kuy dégg suñu kàddu rek suñu sëriñ boobu nga dolli ko ñaanal bu baax baax ba may ko gudd gu fan ak wér ak fekk ak tal yoo xam ne yii dina ci mën a fésal liggéey bi nga xam ne bii moom la bëgg a liggéeyal Cheikhul Khadim loolu ñoo ngi koy dagaan di ko oyaan ci ñëpp rek ñu ñaanal ko ko euh, defal ñu ko ñun ñëpp di si ñu ànd moom ba man ko liggéey liggéeyal boo xam ne bii bu wér lay doon boo xam ne bii doon lu ak ngërëmam su defee euh, bu ñu boobu rek ak néew bi teg ko ci loxoom mooy ñoo ngi koy nuyu ñëpp di leen ko ziare euh, di ndokkeel ñëpp itam waaye tamit di wone suñu mbégte ak suñu xel mu dal ci liggéey bu sell bii nga xam ne bii yàlla dañu ko baaxe ñu di ci di ci jéem a góorgóorlu di ci jéem a nam di ci jéem a làmbatu xaadimu rasul ci jéem koo liggéeyal kon loolu ñun dañ ci am eh, mbégte bu baax a baax a baax waaye tamit di ci am xel mu dal lool ak ak cant yàlla gu wér a wér goo xam ne am na fu muy tàmbale waaye fenn fu mu yem ndax liggéeyal sëñ bi rek mooy li nga xam ne moo ñuy jariñ àdduna ak alaxira kon lépp loo xam ne li dana ko yombalal rek ci suñu jamono eh, ku ñu ca jàppale ban man caa am luñ cay bay suñu waar lu mu néew néew rek loola lu mu ko xeeb dañ koy naw dañ koy bëgg dañ koy gërëm kon ñoo ngi siyaare mbokk yépp eh, góor yàlla yi borom xam-xam yi yi ñëpp rek ñoo leen bu baax a baax di ñaan yàlla suñu koor gi niñ ci duggee ci alhamdulilah yàlla doole ñu ci dimbali ba ñu génn ci nuñ ci duggee ak bismillahi rahmaani rahim yàlla doole ñu ci dimbali ba ñu génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te lépp luñ ci jaamu yàlla rek euh, mu néew mu bari yàlla na ko yàlla nungul te defal ñu ci fool yi comme koy suñ jor jort bi jaay kon tey suñu fatwa mooy laaj tontu yi ñuy rotal ci biir liggéey bi tam am solo lool mbokk yi di ko bàyyi xel waaye itam dinañ ci dimbali ci dinu indil ay laaj yoo xam ne wax dëgg yàlla dem ci yokkoo bu baax a baax a baax ndax laaj lay doon yoo xam ne képp koo xam ne kii xam nga maanaam dina la yokk waaye itam boo xamut boo xamutoon eh, dina la xamal képp koo xam ne kii da ngaa xamal fàtte eh, dina la fàttali mu am solo lool ci liggéey bi ñu di ko gën a bàyyi xel bu baax a baax a baax kon suñu suñuy laaj tey sëriñ biñ ci jëkk a dajal mooy sëriñ Xaadim Diop ñoo ngi koy ziar bu baax a baax di ko ndokkeel di ñaan yàlla loolu ñu defal tawfeex bu baax a baax a baax moom itam tey mi ngi laaj ne hal yu baaxu liman zana bimraatin an yankihaha am tahrumu alayhi maanaam li mu laaj mooy ki nga xam ne ki nene day am jigéen gu muy àndal te seen diggante daganut maanaam ñi ànd di génn la wax euh, bëggante xam naa seen diggante ñi ànd di génn waaye tam yàlla dogal maanaam ci seen ànd googu ñu ànd euh, ak njaaloo dox seen diggante meneen nag day laaj léegi ndax moom kooku nga xam ne kii dafa njaaloo moom ba pare su wëlbati ko bëgg ko takk ndax mën na koo takkaat waaw maanaam mën na koo takk de ndax bu ñuy xool euh, dañuy gis ne dahaba jumhuru ulamaai l ummati ilal xawli bi jawaazi zawaazi zawaaji rajuli bil mar'ati lati zana biha dañuy gis ne ñi nga xam ne ñi ñoo nga ko xam-xam ab diine lislaam bi dañuy gis ne ki nga xam ne kii dafa njaaloog jigéen ba ci yàgg si mu wëlbatiku bëgg koo takk loolu lu dagan la luñ ko may la loo xam ne eh, mën naa nekk waaye tamit jumhuru saxaabat yi ñi nga xam ne ñoo doon ndëkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te eh, gëman ko toppan ko ñoom itam loolu la ñu wax te loolu it wastadallu bi xawlihi taala wa uxilla lakum ma wara zalikum lañ ce tegtaloo nag ne nit ki bu njaaloog ab jigéen ba noppi bëgg koo takk mën na koo teg lañ cay teg mooy bi nga xamee ne yàlla dafa lim jigéen ñi nga xam ne ñii mënee su leen a takk maanaam yow boo bëggoon a takk soxna ñooñu dañuy araam ci yow doo leen mën a takk yàlla da cee lim lu mat fukki jigéen ak juróom xam ne ñii dañ ne yooyu day araam ci waaye bim limee fukk ak ñeent yooyu ba noppi dafa wax nag ne képp koo xam ne kii nag demewut nii ci yow maanaam kooko dagan na la nga takk ko te li lim ci biir lim boobu tuddaalewu ci jigéen goo xam ne bii dangaa njaaloo moom ba noppi kon fukk yooyu ak ñeent incha allahu dinañ ko jéem a wax eh, ku ci nekk mën a xam booy takk soxna eh, ci ñan nga war a takk incha allah kon eh, loolu daal lu mën a nekk la boo bu njaaloog moom ba pare moo xam ëmb na moo xam ëmbut waaye bu demee ba bëgg koo takk daal mën na koo takk su ko defee eh, eh, bi nga xam ne bi nga xamee ne dem na ba bëgg koo takk nag eh, da am ay charte yoo xam ne yii maanaam war nañ koo xam ci seen diggante ñoom ñaar ñépp dog a dugg ca takk googu nga xam ne gii moom lañu bëgg a takkante bokk na ca charte ya muy an tataxaqaqa tawbatu min a tarifayni min haza zanbil kadir mooy loolu ñu defeen muy bakkaar bu rëy rëy te mooy njaaloo nañu ko tuub ñoom ñaar ñépp rëcc ko xam ne def nañ bu bakkaar bu rëy boo xam ne bi dañu ko war a tuub rëcc ko bañati koo def su ko defee ñu dog a mën a takkante ci seen diggante waaye tamit bala ma koy takk na ko may ab diir boo xam ne bii euh, euh, ndoxam man ni moom mu nga xam ne mi mu ngi ko doon mu ko ko doon jox muy dugg ci biiram na bàyyi ab diir boo xam ne bii dinañ ca yaakaar ne ndox moomu set na wicc ci jigéen gi ndax de ndox moomu ndox la moo xam ne mi dafa araam ndax ci njaalo la ko doon defee su ko defee ndox moomu it ne bokk na ca sart nga may ko diir ba ndox moomu mën set foofu ci euh, njurukaayam googu nga xam ne bii fa ndox moomu doon dugg su ko defee it nañ loolu ngeen ñu jàppale ci nga xam ban diir lay am maanaam dañ la ne soo bàyyee njaaloog moom bi nga mujjee njaaloog moom defatu leen ko ba soxna si gis reegal rek maanaam nee na bu gisee benn reegal rek maanaam day tegtale ne kon léegi set na ndox moomu dañ na ci moom waaye tamit bu fekkee ne soxna si dafa nekk ku am bu ci njaaloo boobu day yow yow mi ko bëgg a takk da xaar ba mu am doom su amee doom léegi ba daam jooju jeex ci mooy wasin bi maanaam nifaas bi jeex na bu ko defee bu boobaa mu mën koo takk waaw bu ko defee dafay wax ne wa dalilu xalaali zawaaji biha qawluhu taala baada ba muharramaati wa uxilla lakum ma waraa zalikum maanaam li ñu tegtaloo nag soxna soosu dina ko mën a takk bu charte yooyu jàllee mooy bi yàlla tuddee ñi mu araamal ci ñoo mënta takk ñu weesu ñii nag moom mën ngeen takk su ko defee aay bi dañuy tegtale ne kon rëy boo ci génnee ñii ñeneen ñi ci des ñëpp mooy soxna yi nga xam ne du ñu ay njaalookat njaalookat yi yëpp maanaam ñu mas a jaar ci njaalo ñoo ci yem ci wàllu takk boobu koo ci bëgg a takk euh, boo ko jaaree ci sharia ba ñu daganal diggante bi maanaam duñ ko bëgg a takk su ko defee dañuy jéem a wax al muharramaatu min an nisaay ñi nga xam ne nii euh, yow boo bëggoon a takk ñii mënoo leen a takk ndax islam dane araam nañ ci yéen alquranul karim wax ko mooy xaallahu taala xurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa axawatukum wa ammatukum wa xaalatukum wa banatul axi wa banatul uxti wa ummahatul wa ummahatukum allaati ardanakum wa axawatukum min arradaati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi xujurikum min nisaikum allaati daxaltum daxaltum bihinna fa in lam takunu daxaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abnaikum alladina min aslaabikum wa an tajmacu bayna al uxtayni illa ma xat salafa kaana xafuran rahiman aay bi daal bokk yi ci yàlla wax mooy yàlla da ne ñii ku bëgg a takk rek ñii dañoo araam ci yow mënoo leen takk muy seen yaay yi nga xam ne ñoo leen jur nampal leen seen doom yu jigéen yi seen mag ñu jigéen ñi wala seen rakk yu jigéen yi seen Eh, bàjjan yi seen tante yi maanaam seen rakk yaay yi waaye tamit ki nga bokkal eh, ndey ak baay hmm, bu amee doom ju jigéen mënoo ko takk ki nga bokkal baay ak eh, sa mag ju jigéen ji wala sa mag sa rakk ju jigéen ji say doom yu jigéen mënoo leen a takk waaye tam bu fekkee ni daa am koo xam ne kii bi nga juddoo maanaam sa yaay nàmpalu la keneen nàmpal la kooku dañuy jàpp moom itam mooy sa yaay ci wàll googu maanaam doo ko mën a takk waaye tamit képp koo xam ne kii da ngeen a nàmpaloo maanaam da ngeen a leen nàmpal doonte bokku leen jigéen googu dootoo ko mën a waaye tamit euh, euh, boo yoree soxna maanaam yaayam dootoo ko mën boole ak soxna soosu euh, takkandoo leen waaye tamit buñ la joxoon boo amoon soxna boo xam ne bii maanaam da koo takk fekk mu am doom bu jigéen loolu la ñuy wax doomi jiitle ne ne euh, kooku bu fekkee da ngaa takk yaayam ba moom ne ne su boobaa doom di jigéen jooyu moom dalay araam dootoo ko mën a takk waaye nag ne ne boo ko takkan sax te jotu leen a ànd kon bu ngeen tàqali ko kon maanaam di ko mën a takk waaye ne tam bokk na ci ñuy araamal ci yéen mooy Euh, seen doom yu góor yi suñu amee ay soxna nee na soxna yooyu dañuy araam ci yéen su ko defee nee itam bokk na ci jigéen ñi araam ci mooy maanaam ñaar ñu jigéen doon bokk ndeeg baay maanaam mag ak rakk nga boole leen ci génn ak du maanaam ñuy seendoo ak yow nee loolu moom mooy soxna yi nga xamee daal kenn mënu leen a takk su ko defee kon defe na lim bi buñ ko jàngataatee ba mu jeex maanaam tudd ci ki nga xam ne kii da ngaa njaaloog moom kon ci la ñuy tegtaloo ne kon nit ki boo njaaloog moom ba pare daal wëlbatiku nag nga bëgg koo takk mën nga ko takk waaye ca charte yee nga xam ne moom lañ la wax su ko defee it am na mag mu koy misaale ne mi ngi mel ni ki nga xam ne dafa demal ci tool ak jàmbur di sàcc ca meññeet ma dem ba ci yàgg sa rek mu gis nga daal moom dem bi jënd ca meññeet moom daal moo gën muy dem di jënd ca meññeet ma ne ne ko ne yow meññeen mi dalaa araam ndax danga ci doon sàcc waaye kon maanaam euh, dañ koy tegal bàkkaarab sàcc ba nee waaye itam jéem ñëw di jëndit maanaam am na sañ-sañ jënd ca euh, meññeent moom nga xam ni moom la tool ba doon meññ mu ca doon su ko defee it laajan foofu lañ koy daanele waaye tamit euh, dañuy dénk suñ bopp di ko dénk moom Xaadim Jóob ak képp kuy dégg suñu kàddu xam ne comme lii mu wax nii ne maanaam kii génn ak jigéen maanaam génn ak jigéen mooy ku mu mën a doon euh, bu fekkee ni seen jullit mat na bu fekkee ni sa taalibi mat na loolu moom du yëfi jullit du yëfi taalibe ak jullit ak taalibe wërta ànd ak jigéen yoo xam ne gi takku ko seen diggante daganu maanaam ngay génn moom walla ngay wéet ak moom wala ngay birak moom ak anam gu mu mën a doon rek daal euh, loo xam ne li seytaane rek maanaam moo ko yombal di ko yombal ci diggante yi ba tax ñu di ko def ba la ca nekk ci ay lu garaw ci bàkkaar boo xam ne bi ñu ngi koy def ñu bari dañ ko bàyyi xel waaye nag nanu xam ne bu yëfi jullit te ku koy defee yaa ngi def bàkkaar boo xam ne bii ah, war ngaa jéem a góorgóorlu tuub ko waaye tamit eh, ku te newutan mar ngaa gën a ba loolu nga bañ caa dugg boo ko defee kon laaj boobu daal ñu dégg ko noonu rek wallaahu aalam beneen laaj bi ci topp mbokk yi sëriñ Malick Faye moo koy laaj kon kan ñoo ngi koy ziar bu baax a baax sëriñ Malick Faye sama rakk la ñoo bokk baay euh, mu dugg ci biir liggéey bi wax dëgg yàlla di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax ñoo ngi koy ziar moom itam di ko ndokkeel bu baax a baax a baax ñaan yàlla doolu ñu taxaw bu baax a baax a baax moom itam dafay rota ay laaj yoo xam ne yii bi ci jëkk mooy danee as-safarul maqsuudu fi qawlihi taala fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayaamin uxara yàlla dafay wax ci alxuraan ne maanaam dañoo farataal ci yéen koor comme niñ ko farataale ci ñi leen fii jiitu woon waaye tam dafay dem ba ca wax ne képp ko xam ne kii da ngaa ko feebar wala nga nekk ci ak tukki koor googu maanaam may nañ la nga bàyyi ko ba jàpp ko ci yeneen fan bu ko defee nag feebar moom ku ne ne xam na ne moom feebar ma feebar la waaye tukki gi nga xam ne gii moom la yàlla jublu fii ba may ku koy def nga mën a dog sa kaw lay wax gan tukki la waaw laaj bu am solo la laaj bu jara laaj la waaye tamit eh, bu jar di leerlu la ngir tukki moom bu yëpp rek la islaam nungu ne maanaam boo koy tukki mën ngaa dog sa kaw waaye tukki gi nga xam ne bii moom lañ may jullit bi su koy tukki mu mën a dog kooram mooy tukki gi nga xam ne bii moom lañ la noon soo ko dee tukki si julli yi doon julli maanaam julli gu ci nekk ñeenti rakka léegi man nga koo julli ñaari rakka mooy julli tukki goo xam ne dañ laa may nga mën a wàññi sa julli tukki googu moom la yàlla juble ci eh, tukki bii mu wax ci koor gi itam ñoom ñoo ko ñoo ko bokkale su ko defee eh, tukki nga xam ne gii dañ la noon mën nga caa wàññi sa julli te eh, dafa nekk sunna kuy tukki maanaam julli nga xam ni ñeenti rakka yépp la maanaam ñu ne la dee ko julli ñaari rakka ngir oyofal la ko ngir tukki ni mu mittee ak ni mu nag yow mi nga xam ne mi da tukki tukki googu am na charte yi nga xam ne moom lañ la wax ngir nga mën a wàññi maanaam julli ñeenti rakka yooyu nga di ko ñaari rakka ngir dundal sunna mooy ëpp yool boo nekkan ci tukki googu maanaam di eh, julli comme ñeenti rakka yi nga xam ne moom nga waroon a julli su ko defee. tukki googu nag dafa am ay chart wala hoo shurutun bokk na ca charte ya muy an yakuna mu baaxan tukki googu nee na la na ñu la cay may lool maanaam nga mën a dog sa koor wala ngay wàññi sa julli yooyu na doon tukki goo xam ne gii gu dagan la kon bu nekkee tukki goo xam ne gii bu bu araam la maanaam nit ki daa dem di tukki ji ngir dem di defi loo xam ne neexut yàlla su boobaa duñ ko may day war di woor day war di julli ay julleem ba mu mat bokk na ca ya an اثنين وسبعين كيلو مترا aw isnain wa thamanuna kilometran neneen tukki boobu itam bokk na ca charte ya fi ngay jógee ak fa ngay dem di tukki euh, mu nekk soixante douze kilomètres wala ñu ne quatre vingt deux kilomètres maanaam dañ caa am ak wute ci ñii ne nañ ne na nekk juróom-ñaar fukki kilomètres ak ñaar ñii na nekk juróom-ñett kilomètres ak ñaar waaye bu mu ci mën a doon rek daal ñaari lim yooyu bu mu ci mën a doon euh, may nañ la nga daal di man a wàññi si biir yooyu waaye may nañ la bu dee koor la nga dog ko bokk na ca sarta itam an yaazima ala xatari masafati dafaatan waxtan bokk na ca liy tax ñu ne koy may mooy fi nga jëm mat kilomètre yooyu waaye da ngay dogu maanaam yée sa yéene mooy boo jógee doo escale fenn da nga jóg directement rek daal dem ca foofu nga xam ne fii fa nga jëm nga xam ne moo waral tukki gi kon loolu itam lenn ci charte yi nga xam ni mooy tukki googu ñu mën la ko may nga mën wàññi say julli wala boon fekkee ni ci koor la nga bañ a woor ba dellu si koor gi jeexee nga fay tukki googu muy wax foofu ci su ngeen nekkee ñu feebar walla ngeen nekk ci ak tukki tukki googu la ci suñu borom jublu subhanahu wa taala beneen laaj bi ci des itam ba tey mu jóge ci sëñ Malick Faye mu ne day laaj cheykhun yasrabul xamra wa yatlubuha min tullaabihi la hawla wala quwwata illa day laaj sëriñ boo ne bi day naan sàngara waaye tam yëmut ci di naan sàngara noonu rek waaye ña nga xam ne ñu ay taalibeem ñu sax maanaam da koy sàkk ñoom ngir ñu di ko ko wutali su ko defee loolu nga xam ne nii moom la laaj bi ci wàllu googu muy sëriñ boo xam ne bii day naan sàngara la wax ah ñun de lañ ca xam mooy dañ koy bàyyi ak naan sàngaraam rek ndax euh, xamuñu luy sabab ya xamuñu fu mu ca toll waaye tamit dinañ am sañ-sañ li nga xam ne lii moom lañ xam ci sàngara daay sàngara ñu wax ko ca waaye tamit wax ca la nga xam ne lii moo ca war a doon taxawaayu jullit bi. kon kooku ne ñu ñu nekk sëriñ la muy naan sàngara dañu koy bàyyi ak naan sàngaraam rek waaye fatwa bi am na ko fi laajan. ndax dina dagan nit ki di transporté sàngara dañ ko noonu déedéet bagage dañ ko ci waxan yépp mooy ñëwaat fii rek euh, li wértuwu daal mooy sàngara moom la ca yonante ba wax rek euh, mooy ndey ñëwteef yi mooy bàkkaar yi nga xam ne yi mooy gën a rëy ci bàkkaar yépp te it mooy bàkkaar bi nga xam ne mooy def def bi nga xam ne bi su ko nit ki defee maanaam mën naa def yeneen bàkkaar yi des yépp maanaam loolu lam ci jublu mooy man nañ koo atte atteeb lépp loo xam ne di bàkkaara rek maanaam maanaam def na ko bi mu naanee sàngara si te yàlla subhanahu wa taala dafay wax ne yaa ayuha alladina amanu innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsum min amali sheytaani fajtanibuhu laalakum tuflixoon yàlla dana yéen ñi ma gëm na ngeen xam ne sàngara ak carte ak ay xërëm maanaam sobe su rëy la bàkkaar bu rëy rëy la boo xam ne bii seytaane maanaam moo leen cay xiir ne ne kon na ko moytu jëm yàlla nag dane na ngeen ko moytu maanaam defe naa ku doon nga di jullit yaakaar naa eh, waragoo mën a am sañ-sañoon maanaam di ko jëfandikoo rawatina nag ñoo xam ne ñu dañ ne say taalibe la nga di ko sàkku ci ñoom ndax ne ne sàngara soosu mu nekk sobe joo xam ne ji seytaane moo koy génne ne ne innama yuridu seytaanu ay yuuxya baynakum al adaawata wal baradaa fi alxamri wal maysiri wa yasuddakum an dikrillahi daal di ci teg fa hal antum muntahun nee na seytaane li mu bëgg ci di leen nanloo sàngara euh, bëgg rek tàbbal ak noonu ak bajante seen diggante waaye tamit dafay fexe ba gàllankoor ba su julli jotee du ngeen bañ ngeen bañ a julli ji ndax gis nga sàngara gi nga xam ne ki jëfandikoo na ko ba màndi sariya da ko naan yow bul julli fekk sa fekk moom dañu laa taqarabu salaata wa antum sukaara la wax bu leen jege julli mukk fekk yéen dëgg na mandi waaw man de ci sama wàllu bopp sëriñ bu mu mën a doon ak koo mën a doon maanaam euh, bu fekkee da nga koy jëfandikoo soo ko sàkkoo ci man duma la ko wutal soo ma ko yónnee duma la ko wutali soo ma ko sàkkoo ci sama am amab alal bi itam duma la ko wutal suñu toogam nga teg sàngara ne ma jot li ma sàngara see sax duma la ko jox mag moom ci wàll googu moom foofa laa nekk te moom euh, bu dee ci wàllu sharia daal euh, la nga xam ne lii moom la sharia ne moom nan ko fa ba dafa araan man la ma ca xam mooy ab julit ba ko euh, wala su ko dee defit mu nëbb ko mu nekk loo xam ne li digganteem ak boroomam la ñoom yoo xam ñuy cay def laaj boobu itam am na solo ngir ñu mën a xam bu baax ne daal jullit bi daal moom ki nga xam ne ki da ne mooy sa ci diine te mooy defe naa mooy ab sëriñ euh, la nga ko war a toppe mooy mu doon sëriñ bu maandu bu ragal yàlla boo xam ne bii lam lay digal mooy la yàlla digle waaye lam lay tere mooy la yàlla di tere waaye kër bu demee ba bëgg laa dugal ci yoo xam ne leer na nañ maanaam amul lenn lu ñu nattale ne lii moom dañ koo tërëb jullit su la ca bëggee dugal yow lànkal bu fekkee ne suñu jullit gëm na dëgg na bu fekkee ne gëm gi nga gëm sëriñ Tuuba dëggu na foofu ngay taxaw maanaam am na loo xam ne bi maanaam kenn du ko topp nit ci di ko ca topp ngir doo am benn cëslaay boo xam ne bi maanaam am nga cëslaayal mën ko caa topp kon lool itam dañ ko jàppe noonu rek wallahu alam beneen laajaam itam beneen laajaat beneen laajam mu ngi laaj dane lu mu seet lu mooy at taxaafulu an kasbil xalaal wa adamul amali fi baadi shubaan xata yu addihim ila tasawuli mooy dafa seetlu ne eh, ñu baree bari la dañoo dem ba sàggan ci maanaam sàkku alal joo xam ne ji ju dagan la ju lew la waaye tamit dafa gis ne ay waxambaane yu baree baree bari boo leen di seet maanaam dañoo dem ba daal ab liggéey jéematuñ ko wut ba tax na sax dañu dem ba loolu daleen ci xiir àgg ñoom ci foo xam ne bi maanaam dañuy far sax di wël bi yelwaan maanaam la ñuy def maanaam yelwaan lañ ko mën a tuddee waaw loolu bu ko defee loolu moom du yëfi jullit ndax nit ki euh, li ko war mooy jéem yàlla dogal na mu wér am kàttan yaram xelam la ko war mooy maanaam dem jéem a sàkk loo xam ne ni da koy liggéey maanaam lam cay amee maanaam mu jéem caa jëriñ boppam jéem caa jëriñ ñeneen waaye loolu nga xam ne lii moom la ñuy wax yelwaan te ah, bu ñuy seet ña nga xam ne ñi ñoo ko war a def ña ko yelloo dëgg dëgg daanaka duñ ko def loolu daal lu sariya tere la lu mu bañ la itam ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da dañ ne waqad xazara nabiyu min hazal jurmi fa qaala maa yazaalu rajulu yasalu nnaasa xata yatiya yowma alqiyaamati laysa fi wajhihi muzaatu laxmin yonente bi dañuy moytuloo yelwaan ko nga xam ne gi ki wërta yelwaan da koy def mu ne daal maa ngi leen moytuloo bu baax a baax ndaxte moom euh, ak caay-caay gu sax la ko tuddee maa ngi leen di moytuloo ci caay-caay gii muy ne ne nit a ngi nii nekk ci àdduna nga xam ne métier mooy nekk di wër di laaj nit ñi rek ne laaj boobu muy laaj nit ñi ne dina tax bu yemal xiyaamee bu dekkee maanaam jëm ba day ab yàq dong moo fay des waaye lenn loo xam ne ni aw yàpp la wala aw der la maanaam euh, du ko dekkiwaale kon defe naa ne loolu dara waru koo jur yonente bi sallallahu alayhi wasallam lu ma wax rek dëgg ki nga xam ne kii day wër di laaj nit ñi xam ne euh, bu demee ba bés penc buy dekki jëm boobee du dekkiwaale aw yàpp yoo xam ne la jëbay doon naa loolu melokaan woo xam ne bi naa fa borom jëm euh, day nekk foo xam ne fii du gën ca moom su ko defee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne la an yaxtatiba ahadukum ala zahrihi xayrun lahu min an yasala annaasa aatuuhu aw manauhu yonente bi ne ne kenn ci yéen jëlëg buumam dem ci àll ba di wuti mat di ko yenu su ñëwee di ko dajale jaay ko di ca faj ay soxlaam moo gën mu mën a def loolu ba pare defu ko wër di laaj nit ñi mu ne moo xam jox nañ ko wala joxuñu ko waaye doonul loo xam ne li lu rafet ci moom la waaye doonul loo xam ne lu gën ci moom la daal di waxaan moom sallallahu alayhi wa sallam daal di ne al yadul ulya xayrun min al yadi sufla dafa waxaan ne loxo bi nga xam ne bii mooy féete kaw te mooy bi joxe eh, na moo gën loxo bi nga xam ne bii mooy féete suuf mooy loxo bi xam ne bii moom la ñuy jox borom te defe naa ku mën di doon ci da ngaa bëgg a gën ci sag jaamu yàlla ci seen jullit sa taalibe waaye bëggoo ku la ca gën kon loolu itam jéem kiy joxe moom mooy gën ki ñuy jox loolu itam war naa tax euh, ñu moytu ko bu baax a baax a baax kon bu ko defee nga ne at tasawulu zahiratun qabihatun masmuwatun fi sharay yalwaan daal te ñi nga xam ne ñu waruñoo yalwaan ne lu bon bon la lu ñu ŋaññ la loo xam ne lii charia moom da ko ŋaññ da ko bonal bëggu ko ndaxte ne ne yatadammanu al mazal al muzillata wal muhanata lil muslimin ndax ne ne yelwaan moom ki nga xam ne kii wërta yelwaan maanaam li muy boole ci jëmam jëm mooy day nekk koo xam ne kii kuy torox lay doon waaye itam kuy xeebu lay doon ci képp koo xam ne kii eh, gis nga ko su ko defee dañuy wax ne ko wa ak aksari asbaabi tasawuli alkasalu wa hubbu raaxati ne nag yelwaan moom ñi nga xam ne ñi dañ koy def ko waruñu ko def nee na ñi ëpp ca ñoom naam ak tayal dong nga tax ñu di ko def waaye tamit bëggam noflaay dong nga tax ñu di ko def ay bu ñu jàng alquran karim muy alquran alquran di sharia waqad xasati shariatu ala al abad sharia moom danoo sant liggéey muy alquran karim ndax yàlla dane fa ida qudiyati salaatu fantashiru fi l ard wabtaxu min fadlillahi wadkuru llaha kathiran laalakum tuflihun yàlla dane ngir soññ ñu war a liggéey te moytu wëndeelu di yelwaan mu daal di koy jaarale ci julli ajuma ne bu ngeen julleetee nga xam ne day doon mbooloo boo xam ne dañ fay dajee ne ne bu ñu jullee ba pare rek na ngeen daal di tasaaroo woon te dem doxe ci kaw suuf si dem wëri seen wërsëg bu ko defee eh, ngeen boole ca di tudd yàlla tudd yàlla bu baree bari ndax mën ngeen caa amee la ngeen di bëgg ci wërsëg ngeen amee ko ca waaye tamit mën ngeen caa amee gërëmal yàlla tey dafay wax ne wa jaalal islaamu afdala ma yakulu rajulu min amali yadihi lislaam ne ne maanaam nit ki moom lu mën a lekk rek la nga xam ne lii maanaam moom la liggéey ci loxoom mu di ca lekk moo gën lu mu mën a lekk daa di waxaat sallallahu alayhi wa sallam daa di ne maa akala ahadun taaman xattu xayran min an yakula min amali yadihi ne ne amul benn jaam loo xam ne bi yaa ngay lekk lu gën lekk la nga xam ne lii mooy sa moom nga liggéey daal di ne wa inna nabiyallahi daawuda kaana yakulu min amal yadihi sayyiduna daawud na ne moonaam moom mës na nangoo lekk lenn loo xam ne li doonul lu mu liggéey moom la mu doon liggéey rek euh, moom la daa dunde daal wàllu yenn waan googu itam euh, ak li mu mel daal ci seetlu euh, doonul loo xam ne li lu gën la te xam naa dem na ba àgg foo xam ne fii lu jafe te saafara la lu neexutu saafara la ndax dañ tey dem ba gis sañoo xam ne ñi maanaam sax nag yematuñ ci yelwaan bi sax waaye nag dañuy dem ba daanaka eh, dañuy ëppal ba di ca fitna nit ni sax ca mbedd ya lañ cay mujjee loolu loo xam ne lu gën la kon yelwaan daal lu ko mën a moytu daal a dem jéem a a dem sabablu ji daal mooy la nga xam ne moo gën moo doon wërteefu jullit bi su ko defee beneen laajam bi ci toppaati muy Malick Faye day laaj an nisaabu minal maal maanaam dane bu dee ni nit ki day laaj ci wàllu asaka asaka it am na laaj bu fi jaaral ba def nañ ca leeral xam naa ñu jéem di góorgóorlu bu ñu mënee di topp fatwa yi nga xam ne day jàll lu ci jàllat maanaam ñu jël loola euh, xool ko digluwaat ko waaye duñ koy baamuwaat it maanaam day xaw a doy waar lool daal su ko defee lu mel ni asaka mi euh, waxan nañ ko ci fatwa waaye fii kon day laaj rek moom nisaab maanaam alal ji nga xam ne ji bu ko nit ki amee maanaam azaka war na ca mooy liñ lay wax nii dañ koy sukkandiku ci téeréeb sëriñ Suhaybu Mbàkke dañ koy sukkandikoo ngir mu tënku te it ñu mën caa jàpp sëriñ bi radiyallahu anhu dafa wax ne an nisaabu minal fiddati mi ata dirham suñu sooy bu Mbàkke dafay wax ne te moom it bi ñu jàng fiqa bi it loolu lañu fiqa jàngal dafa wax ne nit ki su dencee ñaar téeméeri dërëm ren ba déwén maanaam mu amoon at maanaam ñaar téeméer yooyu asaka war na ca kon dañu jàpp ne alal nga xam ne ji asaka war na ca mi ngi tàmbalee ci ñaar téeméer yu nit ki denc reen ba déwén su ko defee lu ca topp euh, nañu koy calculer mooy 1000 francs bu nekk maanaam nga génneel ko juróomi dërëm waaye itam bu dee nit ku am or la itam ne ne la cay or ja alal asaka di war mooy or ji bu matee quatre-vingt-cinq grammes mooy juróom-ñetti fukki grammes yi or ak juróom ku ko am moom itam denc ko den ba déwén da nga koy xayma la or di jar ba nga xam ne boo ko jaay nangam lay doon ci xaalis nga xayma loolee génneel ko asaka su ko defee bu dee jaaykat la itam day xayma day teg limu mu yor xaalis lépp lu mu jëndal ci marchandise itam maanaam mu xayma ko la mu ko jënde woon boole ko du ñu yor ci xaalis bu dee or la it maanaam bu jaayee bu xayma or ja boole ko euh, nu mu toll maanaam mu génne ca la nga xam ne lii moo ci war ci asaka ko defee ngén génneem asaka nag maanaam ci yoon woo xam wu yomb wu gàtt mooy loo am ci alal nga diviser ko 40 soo ko diviser 40 maanaam résultat ba lay jox maanaam mooy la nga xam ne lii mooy asaka ja kon daal bu dee ni nisaab la te mooy li ñu war a génnee asaka ci xaalis mooy ñett téeméeri dërëm ci la tàmbalee bu dee ci or la euh, quatre-vingt-cinq gramme ca la tàmbalee bu dee marchandise la dañ koy xayma lañ ko jënd woon bu ko defee ñu génnee ko ca beneen laajam bi ci toppit te mooy bi ci mujj ci laaja mooy day wax lan mooy passé mu dog passé mu dog wàllu passé it maanaam dafa bari ay xeet bari ay bagage lool waaye it li ma koy wax ni it koy toxale rek jëlee ko ci téereb sëñ Suwaybu Mbàkke moom ba tey ndax posé mu dog la wax dañ ko koy wax rek na ko sëriñ ba waxee ca téere ba tey mooy li fuqahaa yi wax mooy liñ bind ci téere yi euh, dañ cay bañ a guddal ndax moom yem passé mu dog rek lay laaj euh, sëriñ bi dane euh, nit ki bu nekkee ak soxnaam ne ko baal naa la maanaam wax baat boobu ñetti yoon ne ne loolu passé mu dog la waaye itam bu fekkee ne dane baal naa la wax ko benn yoon te jublu ca ñetti yoon itam maanaam ñetti passé loolu passé mu dog la maanaam diggante ba dog na su ko defee daal ci gàttal noonu passé mu dog daal mooy kii nekk ak soxnaam am yéene tàggoog moom ne ko baal naa la baal naa la baal naa la wala nu mu ko ko mën a waxee ba baamu ko ay yoon ba muy ñett wala baal naa la googu mu wax ko ko benn yoon te fekk lam ci mooy ñetti pase la ca jublu su ko defee ne diggante ba day dog waaye tamit bu ñuy xool ci yeneen bind yi eh, dañuy gis ne ñoom dañu naan nit ki su fasee soxnaam ba it daja jeex nga xam ne su ko fasee moom ba it daja jeexut mën naa dem jëli ko fekk it daja jeexut dañu koy dañuy jubawaat rek mu ñëw waaye su it daja jeexee su ko bëggaatee faaw dañ ko koy mayaat maanaam da koy joxaat ak cen ñu seere ko ñu mayaat ko ko muy benn mu ñëw ñu nekkaat ab diir mu daal di koy fasewaat bu ko defee dene ne maanaam ñaari yooyu lañ la may muy ñaari pase su ko defee boo iddaam jeexut mën ngaa dem jëli ko waaye soo iddaam yi itam te nga bëgg koo takkaat da nga koy fasaat ñu may la ko su ñëwaatee nag te ñetteel bu yoon ba nga fase ko ne ne bu boobaa moom mënatoo ko takk lu dul nii lii da caa am mooy maanaam keneen takk ko ba ay sabab jaar seen diggante ba mu tàggoog moom bu nga di ko dee nga ko doyti mën a takk te loolu mooy li alxuraan di wax at talaaxu marrataani fa imsaakum bi maarufin aw tasrihum bi ihsaan nee parce que daal ñaar lañ la ci may ngir nga mën a takkaat kooku waaye soo ko fasee ñaar yoon boo ko ñetteelee dootoo ko mën a takk lu dut ni keneen da ko takk ba tàggoog moom ko defee kon ci wàllu noonu mu ko waxee daal muy fase mu dog daal liñ ci sukkandiku mooy noonu ko sëñ bi waxee rek wala wallahu yeneen laaj ji ci topp Serigne Bachiru Faye ba tey moo ko laaj moom itam ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax ci teewam liggéey bi ci ci jàmbaare lool ak baax li am na ñaar doole defal tawfiq Basiru Fay sëñ Basiru li muy laaj mooy ne ne hal yustaratu masaafatu fi bina jawaami fi qura mutaqarriba day laaj ne ndax dëkk yi ni ñu jegeñee am na sarta maanaam eh, diggante bi nga xam ne bii moom la ñaari war ñaari dëkk war a am ngir bu ci nekk mën a am ndax loolu am na wala déet am na diggante boo xam ne naan dëkk sàngam ak dëkk sàngam daal bu tolloo ci nangami kilomètre waruñoo ñaar yëpp waruñoo tabax jumaa yi waaye su ko ëppee bu ci ne mën naa am jumaa loolu lay laaj ba xam su ko defee dañ ko naan allazi alayhi jumhuru ahlil ilmi tahrimu taadul jumaati fi xariyatin ñu jàng ci fiqh daal boroom xam-xam yëpp maanaam ne ñu ci lañu dëpp mooy bu dee benn dëkk la dañuy tere eh, ku fa tabax ay jumaa yu bare waaye nag illa min xaajatin lu dul ni nag dañoo dem ba dëkk ba aajo woo ko soxla ay jumaa yoo xam ne yi yu baree bari la su ko defee nag fii maanaam benn dëkk la wax benn dëkk ñu tabax fa ay jumaa yu baree baree bari dana loolu feek dëkk ba soxlaw ko euh, dañu leen koy tere ñu def ko feek benn jumaa ya ngay leen di doy daal ñoom benn dëkk ba euh, te jumaa jooja la ñu reyam waaye nag suñ demee ba yittewoo ko nga xam ne jumaa ja xajatuñ fa euh, faaw nag dañ leen di bàyyi wala dëkk ba yokk ko yokk ba am nañu sori sori boo xam ne bi duñu mën a dem ca jumaa su boobaa dañ leen di may nag mën nañoo tabax yeneen jumaa yi ca biir dëkk ba ko defee defe naa lu mel ni Tuubaa boo koy xool la nekk ci boo ko doon xamee yaakaar bu motul téeméeri dina ko jege waaye defe naa joo ci dem maanaam nañu sore boo xam ne gii masaafa bi moom may na leen loola waaye tamit euh, sarre ca nekk muy mbooloo ma defe naa boo juma joo ci dem day bari mbooloo ma xam ne tabarkala day bari lool kon loolu benn dëkk la waaye terewut ay juma yu bare bare bari ma nga foofee ci biit euh, li tax nag ñu ne bu dee ni benn dëkk la fekk soxlawuñu ko euh, dañu waruñoo tabax yeneen juma yi mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ne lim nekk madina lépp maanaam benn juma rek moo fa ne ñu julli génn julli ak juma waaye booba it dañoo toll ci foofu la dëkk ba toll woon rek danay ba ci jamono yu alxulafa arrachidina itam noonu la fa doon demee su ko defee nag dañ ne amma isa daat il xaajatu ila iqamati jumaatayni aw akthara fi l baladi aw il xariyati l kabirati fala ba'sa bi dalika fi asaxi xawlil ulama kon na ab dëkk bu dee yokku ba jenn jumaa yi enrancé tu leen mën nañu wut yeneen jumaa yi mën nañu wut yeneen jumaa muy yaari jumaa yi lu ko ëpp maanaam xasaba daal na ko dëkk ba soxlaa bu ko defee bu ko defee nag lam ca laajaan muy amma fi xuran mutafarrixatin fala yushtaratu almasaafatu baynahuma aw baynaha fa yubaaxu li kulli xaryatin binaa u jaamiin laha li mu laaj nag muy ndax dëkk yooyu nga xam ne dañoo jegeñe dinañ ca sart ab diggante loolu itam wax dëgg yàlla jéem dañ ne dëkk dëkk la maanaam dañ ne dëkk bu mën a doon su la neexee boo amee charte mën a taxawal jumaaye taxa tabax jumaaye te am charte maanaam ñu mën faa julli jumaaye dëkk ba lu ñu jegeñe jegeñe am nga sañ-sa mën a tabax sa di fa julli kon dëkk yi daal lu ñu jege jegeñe jéem wax dëgg yàlla ku nekk dañu yow yaa ak sa dëkk nga dem ba sa dëkk nga mën faa am jumaaye am sarti maanaam ñu mën faa taxawal julli ajjuma su boobaa duñ la cere maanaam lu dëkk ya jegeñ jegeñee ku ci nekk soo may tabax su jumaaye nga tabax ko euh, di ca julli ndax dëkk ak dëkk la waaye waxut ni ci benn dëkk bi kon loolu itam ñu jàpp ko noonu nga xam ne noonu la koy war a demee beneen laaj bi ci taf mooy day laaj hal mu tal hal mutalaxatu xayrul madxuli biha alayha idda day laaj ne nit ki buñ ko mayee soxna te àndagut ak moom maanaam sëyeguñu mu fase ko ndax dina ko defal idda loolu lañ ko di wax mooy ida kaana zawju lam yadxul biha wala xalaa biha fala iddata alayha nit ki buñ ko mayee soxna te àndagut ak moom maanaam sëyegut ak moom te wéetu wéetut ak soxna sa wéet gu wér ne wér ne ëpp sëy mën na caa am ñaar yooyu maanaam bu amut su ko fasee maanaam soxna sa doo iddawu maanaam du ko defale idda ndax euh, liñ ci tegtaloo mooy yàlla dafa wax ne yaa ayyuha lazina amanu iza nakaxtumul muminaati summa talaxtumuhunna min xabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin taatuddunaha bu ñuy jàng alquraanu karim aaya bii dañuy tegtal ne nit ki bu takkee soxna fase ko te sëyuñu wéetuñu fuñ mën a sëyee bu ko fasee du ko iddaal maanaam du ko jàppal idda yàlla dafay wax ne yaa ayyuhal lazina amanu yéen yi nga xam ne da ngeen a gëm iza nakaxtumu muminaati su ngeen takkee kenn ci jullit ñu jigéen ñi suma talaxtumuhunna te bi ngeen leen takkee ngeen fase leen min xabli an tamassuhunna njëpp ngeen di ànd di sëy wala ngeen di wéet ne na su loolu amee fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha ne na soxna soosu nga baal te mu demee noonu amul benn idda boo xam ne bi dala koy gàddul ngir war koo defal idda koo ko koy toppee kon kooku daal mooy euh, soxna si bu ko takkee fase ko te ànduñu sëy wéetuñu fub sëy mën amee daal soxna sa du it dawu day wuuteeg nag su fekkan ni waa ji da koo takk ba pare euh, la xadarahu llahu wala sama waa ji faatu te bi muy faatu may nañ ko ko am joxe cen nga wala ñu tudd cen nga ne dañ koy joxe waaye andut ak moom sëyut ak moom wéetuñu wéetee mën naa sëy bu boobaa nag ne ndaw si day iddawu iddaab ku faatu la koy defal mooy Euh, day defee da ñeenti weer ak fukki fan waaye tamit soxna si ci boppam day donn waajooju loolu nag mooy wuteeb diggante moom muy fase mi ak bu waaji faatoo bu dee ni ca fase mala moom moom euh, daanaka siqatuñu dara doo iddawu du ko doon waaye bu fekkee ne waa ji dafa faatu dina iddawu dina ko doon itam su ko defee yàlla yàlla doole defal taafiya jëy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te di ñaanal muudu ngom rek yàlla dolli ko defal tawfiix bu baax a baax ci liggéey bu sell bi mu am lu ak ñun ñu ko moom ndax liggéey bu am solo boo xam ne bi daal euh, lu ko mën a yokku rek lu ko gën a dë mën a dëgëra rek ak lu ko gën a mën a gën a mën a yaata rek loola nañ ko ñaan ñun ñëpp yàlla jàppandal ñu ko di jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa waaye tamit eh, di eh, kontaan ak ci mbokk yi dugg ci liggéey bi yépp wax dagg yàlla borom xam-xam yi jàngale njàngaleem sëñ bi eh, wax dëgg yàlla ñoo ngi rafetlu seen taxawaay bu baax a baax a baax waaye tamit suñu fatwaayee jàll ku mel ni sëriñ Mbay Jaañ ak sëriñ Abibu ñu ngi ndeysaan dañ cee def taalix yu am solo yoo xam ne yii maanaam lu jara bàyyi xel la muy doomi njaaloo jooju ñu doon wax nga xam ne dafay am ñoo xam ne dañuy bëgg a teg ci xel ne jéem bàyyi ba defuñu ko lañu ko waroon a def kon doom jiit it daa war a doon loolu du sariya de loolu deesu ko teg cim xel ndax ki nga xam ne kii dafa njaaloo te fi nga xam ne fii fi la nekk doonul fu ñuy atte atteeb lislaam euh, bu fekkee ne dañ ko war a dóor yari yoon yañ ko war a dóor amul kenn ko am sañ-sañ teg ko ko dóor ko ko su fekkee ne koo xam ne dafa sange wu ñu war koo rey amul kenn ko am sañ-sañ euh, ne da nga koy rey ndax te maintenant loolu boo ko ne danga koy def fii ci suñu réew mi di nga yee fitna ju rëy joo xam ne ji maanaam charia tegu la ko sunna tegu la ko yem noonu la fa demee nag kooku nag dañ koy bàyyeeg bàkkaar ak moom def na lam def digganteem ak yàlla la waaye jéem lislaam dane nag euh, euh, doom ji moom mayuñu ko mu donn waajuram wala kooku ñu ne waajuram la comme ni ko Habib leerale daw it dafa am solo ndax euh, l'islam dafa nanguwut ne waajuram la ndax wérut na ndax ndax waajuram la dañ naa ki ñu naa mooy baayam comme ni ko leerale lu am am solo la su ko defee jéem nag ne ne ne moom lañ ko baayale euh, maanaam kon du ko war a doon te loolu moom lu mën a ne la ndax ku mën a doon fii ci Sénégal nga doon imam wala nga doon borom xam-xam euh, ku lay doon ku lay miiras loo ci lislaam sañu ko miiras jenn fitna du ci am benn jafe-jafe du ci am su ko defee nag sooy dund sariya dund sunna mooy doomi njaaloo boonam fuñ lay miiras loo bu ca doomi njaaloo bokkee bul ko boole ca miiras ma wuru ca bokk da jaral dalaa war a jaral maanaam nga bàyyi miiras ma ndaxte doonul loo xam ne lii dañ caa war a topp kenn na yooyu tamit day am solo ñuy bañ a ñu góorgóorlu ba di topp yooyu nga xam ni dañ koy teg ci xalaat rek ak it ña nga xam ni dañ ca bëgg làq xel nit ak di bëgg ak jooy ak yàq yooyu rek ñu bañ leen caa topp am na solo lool ñoo ngi leen ciy jaajëfal bu baax a baax di leen ca dokkeel yàlla yàlla doolu defal tawfiix bi jay sina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf